salaamaaleykum waaw waa Sénégal waa àdduna maa ngi leen di nuyu bu baax di leen bëggee di leen ziar bu wér-wér naka coono yi bàyyi yéen a ngi ci jàmm yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di ziar gaa yëpp ñi nga xam ne nii ñu ngi ci Sénégal ak ñi nekk bitim réew ak àdduna wërngal këpp ñu bëggee ñëpp di ziar ñëpp di leen ndokkeel bu baax a baax waaw gis nga deet nii lay demee saa su ne ah mu nekk loo xamante ni gars yi na mun nañ ko te dañ koy xaar mu nekk loo xamante ni lu bees tàq la waaw émission la boo xamante ni lawal bi la tudd ah loolu bi nag moom Pape Malick moo koy togg moo koy xel di ko jox jaamu yàlla yi ñuy naan fépp doomu sénégalais nekk rek ñu ngi lay xel ci loolu bi nga naan bu baax a baax di bëggee gars yi di leen ziar bu baax a baax waaw noonu lañ koy defee saa su ne di dugg ci. diaspora bi ziar gaa yi bëgg leen waaw leen leen Badara Traoré maa ngi lay ziar bu baax di la bëggee sama technicien boobu macha allah di ko bëggee borom États-Unis Pape Dieng maa ngi lay ziar bu wér-wér Mamour Sakho ah Abdourahmane maa ngi lay bëggee bu wér-wér di la ziar procureur général moo ngi noonu de tey Abdourahmane ba ndaanaan a ngi noonu nag ak ziar bu baax di ko bëggee bu wér-wér. waaw bu ñu jógee foofu dem Canada def borom bësal sem def live a ngoog def borom ëttu làmb ji maa ngi koy bëggee bu baax di ko ziar bu wér a wér waaw borom macha allah bëggee ko bu baax a baax bu jógee foofu dañuy dem Japon fekk fa maas borom Japon maa ngi lay ziar bu wér a wér mais damay dem Argentine seeti Sayid Kan sama làmb la gum naanaa na ngi noonu macha allah borom tequm biir ak caxabal ak mbotax xatar beeg wéyale sayta ngi noonu waaw damay daal di dem Brésil Fata ngi fa macha allah Fata maa ngi lay bëggee bu wér-wér borom Brésil Aline Mbaye maa ngi lay bëggee bu baax di la ziar bu bër bu wér-wér Aline Mbaye sama ndaanaan bi ak moom moom mooy loolu dama koy booleeg soxna si rek ndax moom tooñ rek lay def waaw Aline Mbaye tooñ rek lay def. Sey Diouf borom Dubaay maa lay ziar bu wér a wér di ñaan xam nga lépp yàlla na sotte jàmm yàlla na yàlla def xéewal gi def sutura bi waaw maam Cheikh koy wax Cheikh Diouf borom Dubaay ana ana saoudien yi ana ana naar yi noonu la noonu la noonu la yàlla baax na jàmbaar dawul dafa wuti doole waaw ñu ngi ziar ñëpp dugg Italie di bëggee Youssou Ndiaye maa ngi lay bëggee sama doomu ndey sama xarit di ko ziar bu wér a wér di ñaan yàlla suñu yaay jooju Adja Maguette Mbaye yàlla na ko yàlla fëgg bopp ba mu dellu si waat wér ak jàmm gunge njaboot gi soxla nañ ko fi waaw soxla nañ ko waaw soxla nañ gudd fanam bu baax a baax dundam am na njëriñ Adja Maguette Mbaye maa ngi koy ziar bu baax di ko bëggee Youssou Ndiaye maa ngi lay ziar bu wér a wér hélas borom Torino sama jour bi maa ngi koy bëggee bu wér maa ngi ziar papa di ziar ñoom Fata gaa yëpp bëggee ziar gaa yëpp ah Tony borom France Amina Seet Diouf ah Seet Diop maa ngi lay bëggee bu wér a wér Momo ah Noreyni Fall mi yàlla faale Badou Mbaye Assane bu armé di bëggee gaa yëpp gaa yi dañoo bëri ñëpp mënoo leen tudd ñuy ziar ñëpp képp ku tudd rek xamal ni tudd nañ la ci xol. waaw noonu lay demee saa su ne ñu nuyu gaa yëpp waaw xam nga dugg ci actualité bi yi nga xamante ni moo xew Sénégal nag moom gis ngeen temps yi moom Sénégal doy na waar waaw doy na waar doy na waar doy na waar waaw ñu gën a ñaaxaat jeunes yi rek xam ni réew mi ñoo ko moom te àdduna du luy sax dafay jeex waaw ana ana suñu maam Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh ana suñu maam Tanor Dieng ana Djibo Djibo Ka ana barki Demba Ndiaye Amath Daan Sakho ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana koy far suuf si kaw ñoom ñu jiitu xale yu ndaw yi ñooy nekk mag ëllëg waaw ñu bàyyi xel loolu Sénégal ñoo ko moom bu ñu topp tendance yeeg modd yi ndax moom modd rek modd moom ku ko topp modde waaw loolu la gars yi wax modd moom ku ko ci ku ko ciy topp saa su nekk rek bu yàggee nga modde waaw ñu xamal ni booy liggéey rek moo wóor liggéey rek moo wóor gëm sa bopp rek moo wóor te yaay yeeg bàyyi liggéey nañ loo xam te ni ci Sénégal nañ góorgóorlu rek waaw nañ góorgóorlu te wërsëgu doomu aadama jarul yaakamti ñun ñëpp dinañ ci jot li ñu yàlla jox dinañ ci jot nañu def ndànk rek te ànd ak dal te ndaw yoonu ndaw du gaaw waaw yoonu ndaw du gaaw bu gaa yi di gaaw a tiit te léegi Sénégal jamono boobu jamono bi ñu nekk nii booy dañu gaaw a tiit ku ci toog boo amee vingt cinq ans vingt six ans gisagoo lu taxaw rek commencé nga déstabiliser wu te soxlawuñ loolu dañu soxla ay boy jeunes yoo xamante ni Sénégal dañu soxla ñoo xamante ni dañu am ay mental de fer waaw dañu soxla ay résistance waaw c'est parce que muñ dafa bokk ci dafa bokk ci lu rëy muñ dafa garaaw muñ dafa nekk loo xamante ni lu doy waar la waaw suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy wax daf ni muñ mooy asabru nisul iman moom mooy moom mooy moom mooy génn wàllu ngëm waaw mooy muñ bon nag il faut que gars yi nangu muñ surtout jeunes yi waaw foofu rek laay tàbbal suma kàddu di jaale suma benn xarit suma doomu ndey muy Ibrahima Pouy ñu koy wax Ibou Ngaté suma doomu yaay boobu suma xarit suma doomu ndey mu ñàkk maamam bu jigéen maamam bu jege woon ci moom waaw muy maam daana ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaw ndax yàlla ay mbiram moo ngi noonu waaw gis nga mu ñàkkaat tamit soxnaam doon am tout tànk yàlla def mu tout tànk bi dellu ñu koy xam nga di ko wan ni fii la yàlla soxlaa jaam bi nga muñ xam ne liy ñëw mooy dàq yu ngaate maa ngi lay jaale sa maam jooju bu baax a baax di ziar gaay di ndokkeel suma gaay yi yëpp di leen bëggee bu baax a baax waaw émission bi nii lay demee mbokk internet ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar bu wér-wér di di ñaaxaat doomu sénégalais yëpp rek actualité bi gis ngeen ko Sénégal instant bi pàccax la def doy xepp waaw canalisation yi nañ ci gaay yi jàppale nañ ci gaay yi jàppale c'est parce que man pour man ñi ñu jiite tamit war nañu xoolaat réew mi quoi war nañu xoolaat réew mi ndax diplôme yu bëri yi théoriquement bi dafa bëri Sénégal dafa bëri théorique dañu war a bàyyi théorie bi te dem ci pratique bi ndax pratique dafa am solo mais xoola tey boo duggee ci réew mi Séné Dakar bu wisee sax nit du am fu mu jaar fees dell ndox mi pàccax pàccax bi xam nga doy na waar ñun waat déete waaye booy tendance yi mel ni xam nga léegi gars yi nañu moytu quoi nañu moytu bu baax a baax surtout affaire de affaire de góor jigéen yi ñu fi laam-laame nañ ko moytu c'est parce que amaluñu njariñ amaluñu njariñ ñi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal yëpp suñuy frère lañ waaw di ñaan rek yàlla nañu yàlla dëgëral yàlla nañu yàlla kàttanal mais noonu lay demee saa su ne xam nga du mën a ñàkk nag ñu ndax ay doomu réew mi lañ du mën a ñàkk ñu def suñuy jàngat ndax gis nañ réew mi ni muy doxee te kenn ku ci nekk rek am nga ci wàll waaw ni ko Alaaji Abdu daan waxee gaal gi bu ci sa ëmb nekkee bul ñaan yàlla sa ëmb rëcc ñaanal gaal gi mucc bu gaal gi muccee rek nga mucc ëmb bi muccaale ñëpp muccaale te Sénégal suñu gaal nañ ko joow loolu waykat bi waxoon Sénégalais yi suñu gaal nañ leen ko joow bon na ki nekk jàpp rek ñu joow gëm naa ni dina baax waaw ndax richesse yi ñi ngi feeñ ñu ngi fi gis pétrole gis fi gaz waaye ñu ngi ñaan yàlla ñi ñu jiite tamit ñu xool nan lañ koy gérer c'est parce que doomu réew dafa metti boo nekkee ci réew juddu ci màgg fi yaroo fi li la war rek li lay suturaat rek mooy nga tekki fa mën ci teral say waajur te loolu daf ciy am solo waaw da ciy am solo bu baax a baax ñu góorgóorlu ci yooyu xam ni Sénégal li ëpp ci population bi ay jeunes lañ te li ci ëpp ay jigéen lañ il faut que ñu dawal yërmande bi waaw xale jigéen yi gis nga ni dundee léegi jamono ji tendance bi dafa bëri gars yi amatuñ yërmande ci jigéen yi xam nga lu ne ngay gis ci réew mi mooy ñu ñaan rek ndax jullit amul lu dul ñaan di talalaat suñu loxo di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla sàmmal suñu réew yàlla nañu yàlla kattanal yàlla nañu yàlla dolli. waaw ni ñu ko defee keroog dañoo defoon lëwal bi gaayen waaw teg rax suñuy baraada teg suñu ataaya tàngal suñu lëwal xelil ko mais gars yi dañ ñu doyaluñ c'est parce que gars yi dañ ñu doyaluñ ndax am na yoo xamante ni gars yi war nañ ci xuus waaw bon foofu rek la ñuy duggaat waxaat ci niñ ko doon waxee muy yan ñoo jaaru ak yan ñoo jaaruwul waaw dafa am làmb yoo xamante ni li koy jaaruloo mooy dafay am adversaire yu leen di boole tey ku mel ni rëg-rëg dafa am ñaari mbër yum boole kan la boole Gris 2 ak Elton kan moo daan Elton rëg-rëg kan moo daan Gris 2 rëg-rëg bon ñaari mbër yooyu rëg-rëg moo leen boole combat boobu soxla nañ ko Elton Gris 2 loolu Sénégal soxla na ko beneen bi ci des moom mooy Gora Sock kan moo daan Gora Sock Tyson 2 Tyson 2 moom moo daan doomu dàngu bon Gora Sock ak doomu dàngu làmb jooju gaa yi soxla nañ ko làmb jooju gaa yi soxla nañ ko Gora Sock mook doomu dàngu làmb jooju gaa yi nañ ci dox promoteur yi nañ dem seeti gaa yi dox lu jaaru la c'est parce que Tyson 2 moo leen boole Sa Thiès est-ce que dina génn ci Yékini Junior est-ce que dina génn ci Papa Sow est-ce que dina génn ci Reug Reug est-ce que dina génn ci Tyson 2 loolu dañ fay def point Tyson 2 moom ak Sa Thiès combat la bu jaaru Tyson 2 yàgg na koo bëgg mais Sa Thiès def na ko woon dabooguma Sa Thiès bu ko neexee mën na def soit ci Yékini Junior ay at ñi ngi koy topp loolu leer na Siteu Papa Sow tamit baax na c'est parce que Zos moo leen boole Papa Sow daan na Zos ñaari yoon Siteu daan na Zos te Papa Sow ci bàyyi ma ñoon la gëjee am victoire waaw loolu làmb ju ñor la làmb ju ñor la Papa Sow làmb Lac de Guiers 2 Gris Bordeaux loolu combat boobu dafa war a taxaw Gris Bordeaux Lac de Guiers 2 yàgg na ko topp Lac de Guiers 2 confirmé na wàcc na jël Papa Sow delluwaat wàccaat jël booy ñaa delluwaat bon yoon la actuellement moo Gris Bordeaux ñu bëre waaw moo Gris Bordeaux war nañ mën a bëre Balla Gaye ak Bombardier war nañ mën a bëre ndax dafa leer Balla Gaye mënul tëb Bombardier di bëre jeeg Modou Lo Bombardier tamit mënul bëre Modou Lo bàyyi fi Balla Gaye bon combat boobu noonu soxla nañ ko waaw Tafatine booy ñaa tamit combat parce que booy ñaa Ama Baldé dafa daan Tafatine il faut que yow booy ñaa nga bëreeg Tafatine jéem a bëreeg Tafatine daan ko. waaw booy ñaa tafaatin moo gën a jaar yoon ka booy ñaa Balla Gaye c'est parce que Balla Gaye bu doon da nga daan Lac de Guiers 2 bu boobaa yaag Balla Gaye dina mën taxaw mais da ngaa échec ci Lac de Guiers 2 bon war nga defaat test ci tafaatin waaw war nga def test ci tafaatin guy gi Ama Balde dafa war a leer boobu mooy combat bi Ama Balde moom Modou Lo du làmb waaw du làmb quoi nit ñi ñu ngi koy laam-laamee du làmb mais du làmb c'est parce que Modou Lo dafa daan Gris Bordeaux daan Lac de Guiers 2 daan Eumeu Sène Ama Baldé daanagul ñooñu kese Ama daanu Gris daanu Lac de Guiers 2 bëriwul ak Eumeu Sène bëriwul ak Balla Gaye bëriwul ak Bombardier bon Modou Lo dafa am ay paran ay ay barrage ci diggante bi Gris Bordeaux Ama Ama bañu ko ndax Ama rawul Gris Ama bañul Bombardier te ñooñu Modou Lo instant bi mooy roi des arènes te roi bi il faut que ñu protéger ko pour mu mën a am valeur Modou Lo premier tour bi warul bëri. dafa war a toog xaar moom fee saison wala war a tëj mais warul tijji saison bi dafa war a tëj saison bi final bi daf ko war a tëj entre Balla Gaye Bombardier ku ci daan nga bëree jéeg Modou Lo Ama Balde moo guy gi dañu war a leer guy gi da ko daanoon 2012 mu ñëw bëree combat boo xamante ni ñëpp dañ ñi te loolu nañ wax dëgg combat amu fa combat amu fa léegi guy gi defaru na taxaw na yow daanoon na la da ngay dem jël sa rëb da ngay ni dem bëree mu leer. c'est parce que làmb ji il faut que ñuy leeral yenn yoon yi ba noppi doog a dem Balla Gaye bi mu fi bëreeg isaapu yi isaapu yi daan ko dafa ñëw daan bu isaapu yi daan bu leer nañ doog a demaat jëlaat yoonam bon il fallait que ñu ñuy nangu leeral Ama Baldé guy gi loolu mooy làmb ji waaw Ama Baldé guy gi loolu mooy làmb ji Boy Niang Tapha Tine Balla Gaye Bombardier Gris Bordeaux Lac de Guiers 2 loolu mooy làmb ji làmb jaa ngi noonu Forza Malick Niang Tyson 2 Sa Thiès wala Tyson 2 Garga Mbossé ama neex ñaataat nga toog bëri woo ama neex yaa ngi Modou Anta yéen a war a bëre yaa ngi Modou Anta yéen a war a bëre yaa ngi Modou Anta yéen a war a bëre instant bi combat boobu moo ñor boo leen fi nekkee di jàmm booy dañuy ñëw tëb leen jën kayre moog caat booy bambara ñu war a bëre ndax jën kayre def na ci combat fale échec waaw mu waree booy bawal tamit moo moom ak Quench combat ba bëgg nañ booy bawal Quench bëgg nañ waaw làmb ju neex la booy bawal Quench làmb ju neex la waaw waaw làmb ju neex la super étoile dafa war a dugg si ci biir gaa yi moo daan Garga Mbossé Hmm? super étoile pakala bëgg nañ pakala ci làmb ji la bokk bu ko ci gars yi génnee pakala super étoile combat bu neex la waaw en 2000 Moussa Ndoye bëgg nañ l'an 2000 Moussa Ndoye bëgg nañ Franc Bébé Saloum bëgg nañ waaw wala Franc Jordan bëgg nañ waaw Franc Jordan bëgg nañ waaw wala Franc Bébé Saloum ñoom ñaar ku ci mën di taxaw bëgg nañ général bu Faas Alioune Seye numéro 2 bëgg nañ général Faas Alioune Seye numéro 2 combat bu ñor la dañu war a bëree ñoom ñaar les deux Ahmed Dem bëgg nañ Tafa Boy Bambara Baaj Seeraas wala Tafa Boy Bambara Tidiane Faye bëgg nañ waaw ñooñu ci làmb ji lañ bokk bu leen ci génnee ci làmb ji lañ bokk gis nga noonu lay demee saa su ne gars yi ñoo ne woon lool bi ah dañoo naan mais doyaluñ mais gis nga noonu lay demee saa su ne dañuy dugg xam nga leeral affaire yi mu xaw a leer waaw armée yaa ngi mut ja loolu ñor na bëree leen ko mu jeex il faut que kenn dem kenn toog waaw armée mut ja loolu làmb la gis nga noonu lay demee làmb ji ubbeeku na mooy li ma doon wax rek tane ji wasaana mbër yooyu yëpp dañu war a bëre ñuy wax rek promoteurs yi ren li leen di ñaan rek mooy nañu gis nga problème yi promoteurs yi am yëpp ñoo ko yóbboo seen bopp waaw c'est parce que dañu bëgg xoolatuñu amour bi xaalis rek li ñuy wër léegi xaalis boobu ñuy wër nag mooy tax léegi mbër yu mbër yu der yi commencé raar waaw commencé raar c'est parce que dañuy jëm a jël ay boo yoo xam te ni mu am nañ ay pexe kërëb kërëb dañuy dem woyaan fii wut ay bolog ñëw bëre mais loolu du affaire bi du loolu affaire bi da ngay génnee ay ndaanaan gis nga Balla Gaye Modou Lo Lac de Guiers 2 Tapha Tine Issa Pouye Yékini Junior Balla Diouf Boy Sey Bac Seras Zos nga yaakaar ni la moo taxoon Sénégalais yi daan bàyyi seen yitte yi di leen seetaan mais dañu génne woon ay ndaanaan te ñooñu avant ñu leen di tëgg ci calaf bi dañoo prouver esati ba mar Zos ñu ngi fàttaliku digganteem ak Saloum Saloum ñu ngi fàttaliku digganteem ak Pape Faye ñu ngi fàttaliku digganteem ak Khadim Ndiaye numéro 2 Zos ñu ngi fàttaliku digganteem ak Issa Pouye ñu ngi fàttaliku digganteem ak Alam Dar mu génn fa ay preuve yu leer nañ ñëw Balla Diouf daan ko Iba Mar ñu boole leen calaf mu jël revanche am Boy Sey noonu moog Balla Diouf seetaan nañ ko fii Moussa Dioum Balla Diouf Balla Gaye Bathie Seras Balla Gaye Mame Gor Diouf Balla Gaye Samba Lawbe mais da dañ ñooñ dañoo prouvé Modou Lo Khadim Diallo Modou Lo Pape Bouba Diop Modou Lo Pour Maurice Modou Lo les deux dañu prouvé Papa Sow Santa Ñing dañu prouvé ba noppi ñu doog leen a wutal kalaaf sénégalais yi nangoo leen seetaan sa parce que loolu mooy tax nga am xaalis bu fekkee da nga dem jël booy boo xam mënu bëri mënu dara am na mbooloo ñëw di tel te li nga tëgg ko ñaari combat sénégalais bu ñu ko seetaanee gisuñ ci moom jàmbaar gisuñ ci moom mën bëri dootuñu sax so sawar ci làmb promoteur il faut que ñu nangu di tëgg booy yu mën a bëri yi booy yu mën a bëri yi général bu faas waru mën a toog te du bëri day bëri am na fit te day bëri nu mu tudd mambala noo rekil mënul daan double moteur double moteur bëri ci kawam ñaari yoon moom anam ay ñaq jariñ bëre bëre nañ daaw mais dañ leen war génne ñu bëree c'est parce que promoteur yi il faut que ñu jéem a xool mbër yi mën maanaam di jéem a promouvoir ñi mën bëre pas ñuy jéem a promouvoir booy bu am mbooloo booy bu am mbooloo tax xamul dara amul sens c'est parce que am na mbër yoo xamante ne yàlla moo leen dimbali ñu timit mënuñu lijjën mënuñu nekk di mënuñu def yëfu wër di woyaan fii dañuy dem entraîné ci am doole ñëw bëree fulla fayda mais am na mbir yoo xam ne nga xoolal maanaam mën nañoo dugg di convaincre fu ne ñu dem fa woyaan fa dajale blog yu bari mais dara xamuñu ko da ngay indi sa gan sax mu yóbbu ko stade mu seetaan ko da ngay naan mais lii mooy seen sport bi te loolu dañ ci war a bàyyi xel promoteurs yi ñoo ñu war a wutal ay combat dara waaw combat yu saf-saf yoo xam dañ déglu amateurs yi dañ ci bokk amateurs yi ñooy dagg billet amateurs yi ñooy dem stade amateurs yi ñooy tax promoteurs yi di tëgg. mais promoteur yi respecté wuñu amateur yi ñoom seen poste rek promoteur bu ciy tëgg mi nga xool lu muy gagné gagné bi day am far force boo tëggee mbër yu mag boo tëggee mbëru der tëgg saison bi nga tëgg combat yu saf sap yi tax ñuy wax mais ay combat yoo xam ne da ngay dem stade xam ne diw mooy daal ay Nandi Fall soq ay qualifié numéro 2 Nandi Fall ay ngeer bu saf fara mais yooyu gars yi xam nañ résultat yi ay double moteur naara sokaas yooyu du làmb double moteur booy bee lañ ko waroon jox maama Lamine maama Lamine lañ ko waroon jox instant bi du bëreeg maama Lamine ndax daan na fëgal fi mu nekk nii double moteur dañ koy jéem a xoolalaat beneen paa boo xam te ne dina mën a mais dañ ko jox ci moromam yi ko jox ci moromam yi mu bëri combat bu saf sap loolu mooy làmb làmb il faut que ñu nangoo boole gaynde yi seen biir Balla Gaye Issa Pouye keroog esat gis nga ni mel Balla Gaye Mame Gor Diouf gis nga Balla Gaye Saloum Saloum gis nga ko Balla Diouf Zos esat Balla Diouf Moussa Dioum noonu Bac Seras Balla Diouf mais buñ boolee ay mbër yoo xamante ni xamuñu dara kenn ci ay kenn ki ayul mbooloo la am mais mooy loolu nañu jàppale te yàlla tax waaw nañu jàppale te yàlla tax tëggal ñu ay combat yu neex waaw gis nga làmb noonu lay demee du jeex noonu lay demee sax su ne seen émission bee nekk noonu waaw Aline dama lay ziaraat rek di la bëggee di la wax sama yaay ji nekk Zang Baaw ñun ma ko baax a baax di ko bëggee bu wér a wér sama doom yeeg sama soxna si ko ziar bu wér di bëggee gaa yëpp di leen ziar baax a baax waaw noonu lay demee saa su ne lawul bi ngi noonu dañ leen koy xeele ngeen naan tàngal ko ba mu ñor paaral ko def ci naana wax leen yéen ñëpp ñu tàqamtiku c'est Diop c'est Diop from France loolu baa ngi noonu dañ ci naan mu saf sap tey dama ci def paseeg naana ba mu saf sap tool yi waaw waa arène bi yëpp ma leen di ziar Aruna maa koy bëggee bu wér a wér di bëggee mu danta di bëggee Jugu Saane di bëggee Boy Pa Ibrahima Moïse Emma maa ngi bëgg bu wér-wér di ziar gaa yëpp waaw sama waa Gale sama mère maa ngi koy ziar di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di ko may suma sœur bu baax ci man suma féete ñu day jóg bu bëggee di ko wan ni gaa loolu yow yow laa ciy njëkk a xel mais bu ngaa di courage àdduna noonu la muñal li ñëw mooy dàq ñii lay demee saa su ne xeex bi du mës a jeex bëggee naa leen jaa ngeen jëf. émission bi noonu club day maas